buñ gannaaw buñ jugee ci lool noonu yëpp waxtaan bi neex na mais damay ñëw ci diggante mbëri fan yi gis nañ euh, jokkante kàddu bi ñuy jokkante kàddu diggante Eumeu Sène la dëgg diggante guy gi ak booyam yi muy àndal noo gisee loolu est-ce que bokk na ci li nga xamante ni dafay doxal am xam ma tey mooy la ma la expliqué sànq rek te am na bi boo xam boo ci nekkee coo du am kenn du am benn problème ak yow. waaw am na dynamique boo xam boo ci nekkee tegal ay victoire yu bëree doo dégg coow wala nga xaw a wàcc tuuti rek après ay coow day am dama bëgg suñ suñ nawle maanaam que suñu mbokk yi euh, jaam yàlla yi doomu adama yi ñu am ñuy am ngor mm-hmm. guy gi champion la ci moom laa njëkki sampion la te bu yàlla dogalee mu ànd ak ay boyam yaa ma ko expliqué de mm-hmm. man dara wóoruma ci yaa ma ci laaj non am la boo duggee ci réseaux sociaux yi di nga ko gis ma leeral la ko ci di ci kii di kii di kii di safara la ak buusita ñu safara ci guy gi lañ nekk waaw ay mbër lañ sax ci boppam ci guy gi leen nekk mais ñoo génn am ay kàddu yoo xamante ni tegg nañ ko guy gi gooyewul guy gi nangamul guy gi nangamul wax ci wax yu bari sit yu bari jëli nañ leen wax ci. ah. ah man de li ma ci wax rek euh, nañ jàppante ñun ñëpp. yaa ngi dégg tey ku ci ànd ma xamal la benn secret na nga ànd ak mbër moo gën a jafe dafa jafe mbër booy ànd ak moom boo nekkul góor dëgg mënoo ànd ak mbër mais booy ànd ak di teg sa sa bët ci liñ koy fay yaa ngi dégg de wala nga teg sa bët ci oto bi muy war. wala nga teg ci sa bët ci kër gi mu dëkk wala nga teg sa bët ci kilifa yi ko yàlla boole ñu nekk ak ñoom yaa ngi dëgg de boo amul iman tuuti dangay am xolu ñaan dañoo sew leer laa la wax xam nga tey ñuy àndama yow yaa ngi dëgg ñu xëy oo ma Mandione jox ko avance ay millions man mi ànd ak moom yeew yeewoo ma cent franc yeewu waale wu ma ko cent franc mhm. léegi yow nga yaakaar si Baye Mandione tey jii Baye Mandione yëkkati tey benn un million may la ko wala benn deux millions baa mu dem jël benn trois cent mille may wala benn cinq cent mille yaa ngi dégg yow bu fekkee tey doo nit ku maanaam jàppoo ko te yàlla tax da nga ko jàpp ngir xaalis wala yooyu da ngay wét boo wétee looy wax naan waaye kii waaye xoolal grand bi mu fayeeku jox avance un million may may cinq cent mille wala may may trois cent mille gis nga yooyu nga gis noonu mooy dem bu mujj gi daf daf lay enal yow bu la jàppaloon te yàlla tax dafay dem daf lay enal da dëbb bu mujj gi boo nekkee entraînement ngay gis loolu su ñoom ngay gis ay benn changement di am changement changement changement muurule instant bii nii dañ laa tëg bët yow te man li ma gëm nit ki bu la yàlla booleeg moom bi boobu xoolal saa woo xëy julli ñaar laaka yàlla gën ka yokk moom ay minti milliards su ma sonoon man mi waxee yow billaahi wallaahi tallaahi xoolal jaam yàlla ay minti milliards la ñu doon ñëpp ñëpp am xaalis ñëpp waxuma wala ñëpp lu yàlla bi da ngay am xaalis bu bëree bëri ba kenn wax kenn soxla mais tey yàlla bu la boolee ay mbër guy gi champion la ki ngay wax nii kan kan la. safara ak buusita. Ah, waaw safara tur la. léegi <laughs> naa ba léegi changé na tur bi léegi. Ah. safara tur ak buusita. Hmm. ñoom ñoo problème ak guy gi. Hmm. yàlla na yàlla sama borom saafara seen seen ay mu jeex tak bu fekkee guy gi moom moo leen mag ñoom ñaar ñooñu yaa ngi dégg guy gi na def maanaam jëfinu mag o ñaar rakam yooyu waxtaan ak ñoom ne leen erreur mënta ñàkk maa ngi tuub di jégalu ba leen bu fekkee nag ñaar rakam yooyu ñoom ñoo tooñ guy gi nan déplacé wu dem ba kër guy gi nekk ah sunu mag kat ab ànd moom erreur mënu see ñàkk danoo jiw moon rek jégal mu jéggal leen ndax ku dul jéggal yàlla du jéggal te ñun ñëpp dañoo ñaan yàlla bu ñu génnee àdduna ñun ñëpp ñu dugg àjjana mais yàlla nag bu la defee mbindeef nga ne ci àdduna ñu lay tooñ te doo jéggale bil jàpp sa bopp nitu àjjana képp koo gis nag muy jéggale ñu tooñ ko tooñ gu méttee métti mu jéggale bay xool nitu àjjana seenaa Muhammad ne na nga xool ci kooku kooku nitu àjjana la te tey seenaa xam li tax mu gënnu yaay doy gënu la ndey gënuñu bàyyi seenaa Muhammad gënuñu yaay gënuñu pap moo la secret boobu tey yaa ngi dégg mais cukka la ko yàlla sama borom taggee jikkoom bu rafet ak ñu koy def ay métit yu baree bare muy jéggale ci la ko yàlla taggee mu nekk gën mi def ba jàkk joo ëbbi ju ne amul mburit baag xaadir baag ñeseen baag ñëpp a ci bokkeem képp kuy nodda boo ne ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammad rasulullah di nga ko wax far fos boo ko waxul sa julli du baax sa mu am moom seen alayhi salaatu wa salaam loolu ko yàlla may jéggale moo ko may ak muñ ay nattu yu bëri daj dal dal si moom bépp nattu booy xalaat bu lu métti métti métti yow nga am ko rek Seydina Mohamed yàlla tegoon na ko duwuloo muñ ko kon na guy gi man maa koy conseillé maa ngi lay ñaan nga jéggal sa ñaar rakk yooyu yaa ngi dégg àdduna amul solo làmb day jeex ay seconde la rek après day jeex mooy mooy li wax rek na gars yi di sàmb diggante yi ba su suñu àndamaa yow bu ñu di ko fa teg nan ànd yàlla tax nii ma loolu laa gëm nañ jël làmb tek ko fële buñ ci waree dem dem ci buñ ci génnee ñëw taxaat xaar benn combat mais suñu diggante nit ñi buñ defee affaire làmba yooyu nañ bokk ndey bokk bàyyi loolu waa léegi bu ma jógee ci loolu damay ñëw ci diggante Lac de Guiers ak Eumeu Sène am na coow loo xam jot na ci am ñenn ñi ne euh, bataille psychologique la ci Lac de Guiers ñenn ñi ne euh, Lac de Guiers dafay sosalaate yàgg na koo def te ñoom ñaar dañoo seq contrat. ah man de li ma ci wax mooy Lac de Guiers mbër mu baax la mbër mu yaru la loolu laa xam ci moom Lac de Guiers xamoo fu bunta këram féete li ma gis Lac de Guiers bariwul. jaaxle ni face à face lu ci bari télé bi laa koy gis yàlla moo tax may wax. yaa ngi dégg am ma seen tamit mbër mu yarul la mbër mu baax la nit ku baax la xam nga ñoom ñaan ñëpp kenn amu ci benn problème mais su ma soxoon tey Lac de Guiers laay waxal man du ma wax lii tey bu subaa ma wax la de. Lac de Guiers yaa ngi dégg champion la te yàlla may nak ci làmb lu mayul benn mbër mooy seul mbër mi nga xamante ni mooy bëri ci làmb. yaa ngi dégg am bene defet boo xam ne kaa tëral daan ko carrément muy mu ëmb seen beneen moom Modou Lo bi ñu bëree pour avertir lañ joxe Modou mooy benn bër boo mën a wax ni kay mooy benn bër boo xam moo fi am dafa benn dafa ci làmb ji mm-hmm. yàlla mayu ko kenn ci làmb moom la ko yàlla may cër boobu ko yàlla jox ci làmb ji nag may ko loolu nit ñi daanu a dee di di am ay ndam moom yàlla may ko ba mu dëree bëre ba léegi mu am ñaar defet benn bi la daanu benn bi par abandon la na rek yëkkati loxo mbër loo jox ko victoire moom bu xoolee ci loolu rek waratu la wax mbër lu ko metti bu xoolee ci loolu waratu la def communication boo xam baaxul mm-hmm. tey toll na foo xamante ni sax euh, man maa ngi ni ngeen fekk ma fii ñu def kan laa laaj day na fekk kenn ku naan kaan li laa wax non non. am na am na genre kàddu xam te su ma ko wax sama émission ci émission yi balaa maa def da ngeen fekk fi sama kilifa toog eh wax lii maa ngi nii toog loo ma dama la koy wax. loo ma la koy wax ndax xam naa ne man ñi ma ci ay doom aadama lañ kon man. yaa ngi dégg kon nag laa de guerre yàgg am seen ay doomu day génn yaa ngi dégg laa moom moo leen boole pour ay seconde rek yàggul dara mais tey laa de guerre dafa bëri isaap yi ñu laaj mën na kuy mooy du ma daan te wax dëgg yàlla xamul isaap yi dana dëkkula isaap isaap yi man maa dëkk ak moom isaap yi suma mag la rakkaam njoon laay ñoo bokk turandoo bokk benn bis buñ judd moom laa maasal rek isaap yi moom laa maasal ñoo bokk benn bis buñ judd ma ak moom yaa dégg laa dëggeer xamul dara isaap yi mu ne isaap yi may kotu yàlla la kuy mooy du ma daan benn réla ngoogu laa dëggeer war a ak Modou Lo yaa dégg taxaw ne Modou Lo li ma la xamal bi su ma ko waxee àdduna bàyyi la ba Sénégal yëpp ne dal seen gémmiñ ne ah li ba jàmm la. Mm-hmm. comme ba ba jeex mu wax mu ne stratégie la stratégie xam nga ñi ñi fàtte loolu. Mm-hmm. kon nag bu ënduwaatee genre wax yu mel noonu ci diggante mag ma Sène mu nekk yow booy ñàkk ak Ama Baldé maanaam na sa ginnaaw nekk Pikine bëggoo ci kenn sama combat ak Boy am na loo ci def waat waat si Seydina Mohamed ne xam nga. Mm-hmm. loolu dafa xaw a doy waar quoi man daal ma sonn daal ñu dafa diggante moom moo ëpp doole. waaw am na ku ma laaj ci benn émission mais Lac de Guiers di ko waroon tey bu gisee Boy Niang nekk an sama Eumeu Sène ba mu si mu nekk mu ngi mu nekk ah, jàppale sama ju baax wala mu gis Eumeu Sène nekk ngi fi mu nekk jàppal de sa rakk ju baax noonu loolu ëpp jullit dox leen moroomi maa ngi toog tey boo ma laajoon suma nit tey léegi nii xam nga new fi dama lay wax lu rafet si moom loo xamante doon doon la ko sama nit kooku mën naa toog àdduma gis sax mais damay wax lu rafet wax la bëri naa fay ñu ma sindil benn mu daan ma benn lan ko doon wax si mise kos bu ñu bëri am mbër du sol ab kos di ko tooñ dafa kos ñëpp a ngay sol xam nga mais affaire yi mbarang la nii quoi mais kenn gisul ma wax ko wax bu dépassé am nga mais kon ñun bu waxante si signature contrat yi nañ wax suñu diggante ak mbër mi kese ñu bañ a génn cadre lamb parce que laa déggee dafa génn cadre lamb waxee ci beneen domaine quoi te domaine boobu baaxul ay boom wax dëgg boo leen boolewul nii bi leen jaxase quoi wax dëgg yàlla ma soon daal xam nga rek boo bi dafa di bi communiqué mu xool ne bi communiqué bu baax dafa dëgg yàlla nag man day xamaluma ko dara laa xamal laa de guerre ah ndax gis naa ci moom nit ku dal la nit ku teel gis si moom kon nag loolu ko doomu aadama yi bàkki Sénégal ne bu laa déggee nit ku teel nit ku dal nit ku yiw la bu nga ko yàq ci ay ay ay combat su ma ñëwee ci combat Modou Lo Ama li bari na combat la. te boo xamante ni Ama bal yàgg naa top Modou Lo Modou Lo dàgg yàgg ko bàyyi xel ba léegi mu nagu koo jël. combat boobu loo ma ci wax. ah li ma ci wax daal ñoom ñaari ay doom senegal lan Ama Baldé doomu Sénégal la Modou Lo doomu Sénégal la yaa ngi dégg làmba ji yàlla na ko yàlla sottil ak jàmm salaam ni nu ko laay mi nga xam moo tëgg làmba ji yàlla na ko yàlla may kàttan gu mu ko àggalee. yaa ngi dégg loolu laa ñaan ñoom ñaan ay doomu Sénégal ku ci am dam dam bi génnu Sénégal muy combat boo xamante ne encore kom bay suxali làmb ci la bokk. moom Bombardier Balla Gaye combat yi suxali làmb ci la bokk moom Lac de Guiers bi nga wax léegi am seen combat bi suxali làmb ci la bokk Boy Niang Tapha Tine kon nag combat yooyu taxaw a taxaw a taxaw yàlla yàlla suñu borom xam nga sotti lépp ku ci am dam rek ñu xam ne dam bi génnu senegal quoi